yaa ngeen jëf mbokki internet Walo Digital News xam ngeen ni euh, tey moom moo 25 mars 2024 Ben fan rek ginnaaw bi nga xamante sénégalais yi jot nañu dem ci urne yi euh, ngir euh, tabb ki nga xamante ni moom moo di président de la république du Sénégal ci diwaan bu Ross Béthio nag xam ngeen ni toppal nañ leen démb li nga xamante ni moom moo di actualité bu baax a baax waaye tey nag ginnaaw ñu dellu si nag ak yéen ngir gën a yaatal jëm ci wàllu résultat yi résultat yooyee nag ci la ñuy ñëw léegi rapidement fi nga xamante ni nag moom ci centre de vote bi nga xamante ni moom école Njorno Fofu nag amon na bureau de vote euh, comme na ma ko waxee woon waaye ci ñetti bureau de vote yooyu rek dañuy daal di agsi ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo résultat yi résultat yi nga xamante ni ñoom ñoo n'ak euh, ci bureau de vote numéro 1 ki nga xamante ni moom candidat bu ben bokk yakar Amadou Ba moom moo fa am 195 euh, voix ka ca topp di basirou diomay Faye jiite coalition bi nga xamanteni mom modi diomay président mom mi am 145 voix Aliou Mamadou Dia am 28 voix Khalifa Sall am 7 voix bureau numéro 2 Fofo Amadou Ba moom fa am 202 voix euh, Bassirou Diomaye Fay am fa 153 voix euh, Aliou Mamadou Dia am 28 voix Khalifa Sall am fa 13 voix bureau numéro 3 bobu nak moom attraction bi ndax xam ngeen ni euh, ki jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Ross Béthio di maire bu Ross Béthio Fally ci bureau bobu le voter foofa nak ki di Bassirou Diomaye Fay moom gagné bureau bobu kon muy findel rek ni maire bi mom dafa ñak bureau ba nga xamante ne fa la voter ndax Bassirou Diomaye Fay moo fa am 158 voix Amadou Ba am fa 429 voix ki nga xamante ni moom di Aliou Mamadou Dia am fa 23 voix Khalifa Sall am fa 3 voix loolu nag euh, su fekkente ne rek def nañu lii nga xamante ni moom moo di compilation bi dafay fekk rek kii di benn bokk yaakaar moom moo gagné ci centre boobu nga xamante ni Amadou Ba am na fa 526 euh, voix euh, Bassirou Diomaye Faye am fa 456 voix kii di Aliou Mamadou Dia am fa 79 voix ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall am fa 23 voix waaye nag bu ñu jógee foofu. dañuy dem fi nga xamante ni nag moom moo di centre bi gën a mag euh, ci Ross Béthio nga xamante ne moom moo di la centre témoin centre témoin boobu nag bu ko xoolee mu nekk loo xamante ne juróom-ñetti bureau ñoom ñoo fa nekkoon juróom-ñetti bureau yooyu nag euh, bu ñu xoolee fii nga xamante ni moom moo di bureau e bi Amadou Ba moom moo fa am 127 voix kii di euh, Bassirou Diomaye fay am fa 165 voix kon Bassirou Diomaye fay moom moo ko gagné ka topp moom moo di Aliou Mamadou Dia am fa 18 voix Khalifa Sall am fa 12 voix bureau numéro 2 Amadou Ba. moi am 98 voix qui dit euh, Bassirou Diomaye Fay am 203 voix qui dit Ali Mamadou Dia am 23 voix top ci Khalifa Sall am 14 voix kon euh, fofu batay qui euh, dit Bassirou Diomaye Fay moko gagné bureau numéro 3 qui dit Amadou Ba am 123 voix Bassirou Diomaye Fay am 172 voix batay mom mo gagné wat qui dit Ali Mamadou Dia am 14 voix Khalifa Sall am 23 voix bureau numéro 4 qui dit Bassirou Diomaye Fay am 196 voix Amadou Ba am fa 108 euh, voix top ci Khalifa Sall am fa 17 voix Aliou Mamadou Dia am fa 11 voix Qui di bureau numéro 5 ki nga xamanteni Mamadi moom moo di euh, Bassirou am fa 188 voix euh, Aliou Mamadou Amadou Ba plutôt am fa 111 voix Qui di Khalifa Sall am fa 16 voix qui di Aliou Mamadou Dia am fa 9 voix bureau numéro 6 ki nga xamanteni modi moo di Bassirou am fa 195 voix Qui dit Amadouba, en fait 110 voix ki nga xamante Ali Aliou Mamadou Dia le place bi am 15 voix qui nga pas maintenu Khalifa Sall am 13 voix bureau numéro 7 Bassirou Diomaye en am 192 voix Amadou Ba am 88 voix Top qui Aliou Mamadou Dia am 19 voix Khalifa Sall en fait 10 voix bureau numéro 8 qui dit Bassirou Diomaye Faye ou tey moo am 140 voix euh, Amadou Ba am 89 voix Aliou Mamadou Dia am fa huit voix Khalifa Sall am fait sept voix li nga compilation bobu ci total bi daf centre bi nga xamanteni centre fofu gagné mom modi Bassirou am euh, Amadou Ba voix Ali Mamadou Dia am fa 117 voix euh, Khalifa Sall am fa 112 voix benen bi nga xamante momit également attraction la mu di euh, centre bo xamante mom modi moo ba fofu tamit euh, ñu xam rek li nga xamante mom modi ay leader yu nekké au niveau de sànc ba ñu ci bare bok ci coalition bok yakar euh, également mu am également ay leader yu bok tamit ki fi nga xamante mom modi coalition jomay président fofu tamit nekkon fo xamante ne teg nañ ko gët naka noné ci bureau 1 bi nga xamante gagné 158 voix ka di Amadou 145 voix Aliou Mamadou Dia 3 troisième place bi am 27 voix Ki di Khalifa Sall am 3 voix bureau numéro 2 ki nga xamanteni mom modi euh, Faye am 177 voix euh, Amadou Ba am 125 voix Aliou Mamadou Dia am 29 voix Khalifa Sall am 2 voix bureau numéro 3 Bassirou Diomaye Faye am 171 voix Amadouba en am fa 141 voix ki nga xamantene ne euh, am Aliou Mamadou Dia am fa 27 voix Khalifa Sall am fa 3 voix kon centre bobu mom ñetti bureau yoy la won ñetti bureau euh, a gagné Momo dia euh, Bassirou Diomaye Faye buñu défé compilation bi day nekk Bassirou Diomaye Faye mom mo ba ag ci 506 voix ki nga xamantene modi Amadouba en am 411 voix Aliou Mamadou Dia ñëw ci le place bay ak 83 voix Khalifa Sall ñëw ak 8 voix euh buñu demee fi nga xamante mom modi ci centre bu b 1 fofu ñaari bureau moo fa am euh, benn bureau bi Amadou Ba moko gagner am 352 voix Bassirou Diomaye Faye am fa 29 voix Aliou Mamadou Dia am fa 5 voix Khalifa Sall am fa 4 voix bureau numéro 2 Amadouba Bataille Moko gagne am 160 voix Bassirou Diomaye Faye 12 voix euh, Aliou Mamadou Dia 4 euh, voix Khalifa Sall am 0 voix total bi daf ñuy jox euh, am 512 voix Bassirou Diomaye Faye am 41 voix qui dit Aliou Mamadou Dia 9 voix Khalifa Sall am 4 voix. Euh, fi nga xamanteni mom modi moo di Nawar 2 fofu ben bureau rek la am fofu nak euh, ka nga xamanteni mom mo ñew ci bop bo mom modi Amadou Ba mo am 182 voix euh, ki di jomay fay am fa 15 voix Aliou Mamadou Dia am fa une voix Khalifa Sall am fa une voix euh, bu donc loolu mom modi la nga xamante amna ci benn bureau bi donc li yëpp buñu défé euh, toute la compilation au niveau de la commune de Ross dañuy gis ni la coalition Benno Bokk yakar mom moko ko remporté mais ki lo xamante amul soreyo ndax euh, ci bop bi dañuy am Amadou Ba mi am 2485 voix dans toute la commune de Ross qui dit di Bassirou Diomaye Fay am 2469 voix fi nga xamante modi sur l'ensemble de la commune de Ross Béthio également top ci Ali Mamadou Boupure, bu PUR am 289 voix euh, le place bi di Khalifa Ababakar Sall mom mi nga minga mi 148 voix kon lolou mom moy leral bi nga xamanteni amna ci élection présidentielle yi ginaaw bi nga xamanteni askan wi euh, jot nañu voté ji ma koy fàttali nag li nga xamanteni mom lañ doon xaar ci ay électeurs yo xamanteni waron nañu dem voter ji mi ngi toll won ci 8511 électeurs yo xamanteni ne doon nañ leen xaar sur l'ensemble dans l'ensemble ensemble euh, du territoire euh, communal de Ross mu jëntal ga nak la ca génn mom moo résultat yi di fatali ni Amadou Ba mom mo ñew ca bop ba li nga xamanteni mom la rawee suivant direct bi di Bassirou Diomaye Faye mom modi 16 euh, voix maanaam euh, fukki xop ak euh, juróom-benn moom la rawee ki nga xamante mom modi moo di Bassirou Diomaye Faye mu nek nak lo xamante vraiment tendance bu serré serré serré la bo xamante taxul mu am détachement waye nak di fàttali ni également lii nga xamante ni moom attraction bi li nga xamante ni moom information information majeure bi mooy ki nga xamante ni moom le maire de la commune de Rosbecho, Béthio bureau ba nga xamante ne fa la voté di bureau numéro 3 nekk ci centre bu Njorno foofa dañ ko fa gagné euh, également yeneen leader yoo xamante ne ñi ngi nekkoon au niveau euh, de la commune de Rosbecho, Béthio bokk ci kujje euh, gis nañu teewaayu ñi nga xamante ni ñoom ñooy au niveau de la coalition Diomaye président mais également ñi leen doon soutenir buñ ko waxee dañ qui xel day dem ci parti démocratique sénégalais kenn ku ci nekk ñu gis également taxaway bi nga xamante ne am également kenn ku ci nekk de leur côté en tout cas euh, tous ces leaders de la coalition Diomaye président en tout cas nekkee au niveau de Ross euh, constat bi ñu def euh, à l'exception euh, du centre de Ndiorno tous les autres leaders vraiment ont gagné non seulement leur bureau mais également leur centre